الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء أوقف فؤادك هاهنا وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار فاحرص على ألا تفوتك فهي كنز الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد بكي جلدي ما ngi dénk sama bopp ragal yàlla di leen ko dénk ragal yàlla mooy dénkaane bi suñu boroom dénkoon ñi fi jiitu woon moom la dénk itam ñi fi mujj ñëw wa laqad wassayna allazina utul kitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullah jële al-Xattaab radiallahu anhu mu ne benn bis noo ngi toog ak yonent bi sallallahu wa waay ni tëll tëll buñ ko waxee mooy ko xam ne da ngaa jékki-jékki rek gis ko séenoo ko bi muy ñëw da ngaa jékki-jékki rek gis ko mu ne yére yi mu sol mi ngi weex tàll kawar gi mi ngi ñuul kukk kenn gisul ci moom jeexitalu kuy tukki parce que ku jóge ci tukki di doog a yegg si léeg-léeg mu ñaq wala mu pënd wala mu sonn waaye nee na yooyu kenn gisu ko ci moom te itam kenn xamu ko ci nun ci waa dëkk bi kon li muy tekki muy dëkkul ci dëkk bi te itam nuruwul ne koo xam ne daa jóge ci bitti ñëw yooyu Omar jot na ko cee seetlu nee na bi mu ñëwee itam dafa jubal ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal di sukk ci kanamam fab ay wóomam sësale ko ci wóomi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fab ñaari loxoom teg ko ci pooji yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàkkaarloog moom daal ne ko yaa Muhammad axbir nii anil islaam yow muhammad dama bëgg nga xibaar ma lan mooy lislaam yonente bi sallallahu ne ko lislaam mooy nga seede ne amul benn buur bu yeyoo ñu jaamu ko ku suñu boroom tabaraka wa taala nga seede ne muhammad ndawul yàlla ngay taxawal julli di joxe azaka di woor weeru koor di aj néeg ba ca makka bu fekkee am nga man-man ba mu ne ko wax nga dëgg nee na nu yéemu lool di laaj ba noppi di ko dëggal mel na kon li muy laaj moom da koo xam mu dal koy waxaat ne xibaar ma lan mooy ngëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ngëm mooy nga gëm yàlla gëm ay malaayikaam gëm ay téeréem gëm ay ndawam yi mu yónni muy ay yonentam gëm bis bu mujj ba di àllaaxira gëm ab dogal bu yiw ba ak bu ay ba dogal bu neexee ak bu neexul yépp ñu gëm ne ci suñu borom tabaraka wa taala la jóge mu ne ko wax nga dëgg daan koy waxaat ne xibaar ma lan mooy ixsaan mooy rafetal mu ne ko mooy ngay jaamu sa borom tabaraka wa taala teewlu ko ba mel ne yaa ngi jàkkaarloog moom soo demee ba egg ci mënoo mel ne yaa ngi jàkkaarloog moom nga xam ne moom mi ngi jàkkaarloog yow mu ne ko xibaar ma mbirum yowmal xiyaam yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yowmal moom saa kañ lay taxaw ki nga koy laaj gënu koo xam yow mi ku koy laaj mu ne ko kon xibaar ma ay màndargaam yuy tegtale ne mi ngi jege si mu ne ko bokk na ca ab jaam bu jigéen ju ab sangam maanaam nit ñi dem ba di sëy ak seeni jaam su te amee doom ja doom ja moom du doon jaam waaye sang lay doon ci yaayam mu ne ko bokk na ca màndarga itam nga gis ñi nga xam ne dañu daan tumuranke lool ba daawuñu soli dàll dañu daan rafle dañu daan ñàkk lool ba nit ñi leen daan dimbali lañ daan def mooy di sàmm ay gàtt te léeg-léeg sax duñ ko moom dañ leen koy sàmmloo nee na nga dem ba gis ñooñee ñuy te ci ay tabax tabax ay étage nee na waaja daal di jekki-jekki daal di dem nee na toog ab diir yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ma yaa Omar ndax xam nga ki doon laaj ne ma ne ko yàllaa ko yonentam ñoo ko xam ne mu ne Jibril la dafa dikkoon di leen xamal seen mbiri diine hadis boobu muslim solo na ko hadis bi siiwe lool ci hadisu Jibril hadis bi hadis bu mag la boo xam ne dafa làmbu leeral saraa lépp diine moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mujj mu ne ataakum yuallimukum diinakum dafa ñëw di leen xamal seen diine kon addis bi lépp diine gi ci ndax yonente bi sallallahu alayhi wa na ko lislaam leeral na ko iimaan leeral na ko ihsaan te ñett yooyu mooy xaaji diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñetti xaaj yooyu yëpp mu tudde leen diine moo tax imaam nawawi rahimahullah ne addis bii day dafa boole xeeti xam-xam yu bari ak ay teggin yu bari ak ay njariñ yu bari ndax mooy cosaanu lislaam addis bi ay masala yu li ji ci biir masala bu njëkk bi mooy addis bi day tegtale teggini kuy sàkku xam-xam te bokk na ca mu rafetal ni muy jekke ci kanamu ki koy xamal booy toog ci kanamu ki lay jàngal toogiin wu tegginu nga war a toog waru toog di tàllal say tànk waaye toogiin wu ànd ak toroxlu ndax kooku bi mu ñëwee dafa ne groupe ñaari bëti woomam sukk ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wasallam wata ñaawal teggin digganteem ak sëriñam bi koy xamal ci wax wala ci jëf wala ci melokaan waaye war naa sàmmanteel itam kuy sàkku ji xam-xam nga war a wàcc ci yére ya ngay sol ci ak setam ak saw yaram itam na muy sete ngir terale ko xam-xam bi nga xam ne moom ngay wuti ak boroom xam-xam ba ngay fekk jibril alayhi salaam dafa ñëw di jàngal nit ñi ci aw melokaanam waaye ci ay waxam ni mu mel rek ci col gu set gi mu sol ak ni mu jekke loolu am njàngale la ci ne kuy wuti xam-xam da nga koo war a waajal waaye ay waxam itam lépp njàngale la bokk na ci li mu jàngale waale itam na kuy jàngal kuy jàng war naa doon ku dëgër ku wóolu boppam waxuñu mu naw boppam waaye mu wóolu boppam ci jàpp ne li muy laaj war na ko mën a xam bu mu am kersa ci laaj ak sàkku dëgg moo tax kenn ci mag ñi salafu saalih daan wax ne ku bari kersa lool du mën a am xam-xam ku rëy itam du mën a am xam-xam ndax ñooñu kee boroom kersa gi da koy dox digganteem ak laaj li mu waroon a laaj wala lu mu xamul ba noppi rus koo la leerlu kee moom ak rëyam pour wan ne ne xam na te xamut mooy tax du laaj li mu xamut moo mu ne ñaar ñooñu duñ mën a am xam-xam ñaareelu masala bi hadis bi itam wane na teggini boroom xam-xam bi itam daa war a am teggin digganteem ak ñi muy jàngal dana jaadu ci boroom xam-xam bi mu toroxlu moom itam lawet ci ñi nga xam ne ñoom lay jàngal ci laaj yi ñu koy laaj doonte sax weesu nañ ca fañ waroon a yem ak moom ci ak màggal ak fonkeel bokk na ci teggini boroom xam-xam itam suñu ko laajee lu mu xamut mu ne loolu xaw ma ko moo tax gis nga bi mu ko laajee ne ko yowmal xiyaam nag mu ne ko loolu moom tanewuma la ci loolu ki koy laaj ki mu koy laaj gënu ko koo xam ndax loolu du wàññi dara ci wàccuwaayu borom xam-xam ñu laaj ko dara mu ne xaw ma ko moo asalafu saaleh loolu bokk na ci seenum jàngale ñetteelu masala bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam biir ne ko lislaam mooy nga yàlla rek mooy buur bi yooyu jaamu ko lislaam li muy sa lépp yàlla ànd bi wéetal ko ca nag doo ca boole keneen wommatu ko ci topp la mu lay digal waaye ànd ak bàyyi bokkaale ak ñiy bokkaale yonent bi sallallahu alayhi wa lislaam jëf yi nga xam ne moom la cër yi jëf ci moo xam wax la wala jëf la jëf yooyu day séddalikoo jëf yoo xam ne yaram a koy def lu mel ne julli ak ak jëf yoo xam ne alal a koy def lu mel ne azaka ak jëf yoo xam ne nag yaram moo koy def ak alal lu mel ne aj makka danga nga joxe sa alal waaye da nga joxe sa coonob yaram itam lislaam ëmb na mboolem war-war yi yi nga xam ne yu feeñ la baatub lislaam daf koy ëmb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam juróomi mbir yooyu mu tudd rek lislaam gën naa yaatu loolu waaye nag loolu mooy cosaan yi lu ñëwati ci kaw yooyu lay tege te loolu li koy tegtale bokk na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li wax ne ab jullit mooy ku jullit ñi mucc ci aw làmmiñam mucc ci loxoom ndax lor ji gën a bari ci loo xam ne nit dana ko lor moroomam benn ay wax lay doon wala ay jëf lay doon dugg na ci lislaam itam bàyyi mbooleem yu xaraam yi loolu itam bàyyi ko day taxa nekk ci biir lislaam waaye ñàkk koo bàyyi itam day manqué lislaam ngëm yàlla mu ne ko mooy nga gëm yàlla ak i malaikaam ngëm dañ koy wax ciw làmmiñ waaye dañ koy fas ci xol waaye dañ koy jëfe ci ay cër ngëm yàlla day dolliku ci loo gën a topp yàlla rek sa ngëm yàlla gën a yokk waaye day wàññiku ci mooy yàlla mooy yàlla ku koy def sa ngëm yàlla day wàññiku yonent bi sallallahu alayhi wasallam firee na ngëm pas-pas yi nga xam ne lu biiru la ci xol lay nekk moo tax masabu ahli sunna jamaa ci ngëm day boole wax ak jëf waxi kese dong ju àndut ak jëf du doy waaye wax ak jëf ju àndut ak sellal du doy wax ak jëf ak sellal ju àndut ak dëppoog sunna du doy boo demee ci risaala noonu la ko boroom risaala xamle nee na ñeent yépp ngay boole da koy wax da koy jëfe da koy sellal te day dëppoog na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defee woon fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw ku fi ñëw sa gannaaw su gëmee lu mel na lii ngeen gën yéen yow yaag say saxaaba kon gindiku na wa in tawallaw nag fa innama fii fi siqaq bu ñu wanee gannaaw lii ngeen gëmoon nag andi fi leneen kon ñoom ci ŋaayoo ak ñàkk déggoo ci lañuy nekk ndax duutuñu bokk luñ nekk jëf yépp yoo xam ne yu biiru la nga xam ne xol a koy jëf day dugg ci al iman masala ñeenteel bi mooy lislaam ak imaan fu ñu leen tuddee Berlin nga xam ne l'islam rek la ñu tudd wala imaan rek la ñu tudd loola boobaa ba benn bu ne day yóbbaale moroom ma suñu tuddee l'islam te tudduñu fa iman iman biir suñu tuddee iman te fa l'islam lislaam a nga ca biir waaye nag suñu leen boolee nag tudd l'islam tudd iman ci barab boobaa islam day jëm ci jëf yu feeñ yi ci biti julli yeeg koor yeeg asaka yeeg yi nga xam da nga cee mën a tig ngëm yàlla moom bu boobaa day jëm ca jëf yi ca biir ca xol ba nga xam ne moom mënee su ca teg bët juróomeelu masala bi ñuy jàng ci xadis bi mooy koo xam ne matal nga ponki islaam yi nga xam ne juróom la dangay ngay nekk ab jullit dëgg-dëgg waaye koo xam ne da saxal ñaari baati seede yi nag kooku ab jullit nga ci atte waaye nekk goo jullit dëgg ndax nit mën naa tuub ci kanam mbooloo mi wax ñaari baati seede yi ñu def jullit la ci atte atte la yor waaye nag njulitam matagut ndax gisaguñu mu julli gisaguñu mu woor gisaguñu mu jàpp gisaguñu mu def dara moo tax nag su xasee wax ñaari baati seede yooyu mboolem li lislaam di digle day daal di war ci moom su ko taxawee daal di nekk ab julli dëgg su waxee ñaari baati seede yi ba noppi nag te yi lislaam santaane defu ko julli wut wóorut asaka wut mboolem yi lislaam digle defu ko kon ni ko ñenn ñi waxee ne xol rek a takku waaye bëgg a jàpp ne jëf yi bokku ci kookee bu boobaa dañ koy jàppe ko murtat dugg gi mu duggoon ci lislaam dañuy jàpp ne da caa génn ba mu nanguwul a taxawee ponk yi nga xam ne mooy ponk lislaam mbokk yi kon jamono bu nekk dañoo war di nafaraat suñu diine di rombaat ci lépp moo tax insha allah hadis bii dañ ciy sukkandiku bunt yi ci nekk yëpp bu ñu yàlla jàpp ne la benn bu ne ñu def ci ab xutba tudde ko ataallamu diini jàngaat sa diine nafaraat ko yeesalaat ko jamono bu nekk jullit bi da ko war di def ndax doomu aadama lu mu yàgg rek day mujj di ruus mu koy mujj di miin mujj di ko doye dal moo tax fàttali di baax ba tam borom bi ne fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin deel fàttali ndax fàttali day jariñ ku gëm yàlla wa zakkir fa zakkir in nafaati zikra sa yazakkaru man yaxsha deel fàttali bu fekkee fàttali am na njariñ fàttali kan lay am njariñ ci moom mooy koo xam ne ku ragal yàlla la yàlla nu yàlla boole ci ñi nga xam ne fàttali dana leen jëriñ allahuma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء أوقف فؤادك هاهنا وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كافية